aleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu yi nga xam ne yéen ñu seetaan ci alxames bi nga xam ne astafurlah maa ngi jiw tey nga xam ne altine la di bés boo xam ne la ca des pour ñu wari ndax xam ngeen ne tey mooy la cinq ci weer bi nga xam ne mooy mois d'août di weer boo xam ne weeru yërmande la weeru taw weer la boo xam ne wax dëgg yàlla weer bu neex la su ko defee ñuy fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan. ci ajjuma ji ak ci samedi beeg ci dimanche bi ci télévision yi ñoom ñëpp bëgg nañ ci ñoom waaye di ci liggéey ak liggéey bu am solo ak suñu partenaires yi nga xam ne wax fa dëgg yàlla ñoom ñoo ñu jàppale gis ngeen tàngal boobu nga xam ne moom la njoolee di publicité di tàngal boo xam ne boo ko màccee mint bi ci boppam dafay des sa gémmiñ boo koy waxal xet ga ci boppam day neex waaye njëriñ baa nga ca ka nga xam ne moo koy màcc waaye ki nga xam ne màccul sax bu ki koy xet ba ci boppam day dugg ci gémmiñ gi kon tàngal boobu nekk na tàngal bu wóor te dañ koy xàmmee mooy ñey ba ci boppam mooy wane bakkan ba ca biir bi gis ngeen wax naa leen ko ak énergie ñoom ñoo ñuy gunge lii boo pettee sa énergie ci bëccëg bi guddi gi mu jox la ko waaye nag dina la jox cawarte bu am solo lii nga xam ne mooy organique di gis ngeen ko défrisé bu baax la à froid bu baax la am na yoo xam ne ay sachet am na yoo xam ne fa nekk ci boîte soo ko defee boîte bi nii mel ngeen xàmmee ko sa yi nii lay mel ngeen xàmme ko sachet yaa ngi nii <laughs> boîte yaa ngi nii waxtu bi ñu wax ak yéen xale yu jigéen xam ngeen ne da raxas karaw moo xew ndax boo ko raxasee dina tax dana dana nooy waaye kalas kalas ak tilim tilim dina ko dindi xàmme leen ko moo nekk ci sachet bi nekk ci pot bi di organique waaye sànqal bii nga xam ne moom mooy suqali suñu cosaan di sànqal noflaay gis ngeen ko réew mi nañ ko bayee jëndee ko ci réew mi defaree ko ci réew mi ay doomu sénégalais daal di koy defar ñoom ñoo ñëw ne dañuy jàpp ci émission bi pour ñu xam seen produit incha allah bëgg naa daal ñu bañ am gàcce bu émission yi jeexee ñu xam ne wax dëgg yàlla fa ñu jaaroon foofoo jar a jaar ndax seen produit fii nañ ko xamee kon sànqal bi nga xam ne moom mooy naflaay gis ngeen ko ndaw ci ci sër bu xonk bi ak yër bu xonk bi euh, boot doom ji moom mooy xàmmekaay bi amul xeer amul sunguf amul amul amul amul bant amul yet neex naa lekk nooy na set na waaye tamit sakkan na kon xàmme ngeen ko bu baax fromage la vache qui rit ak meew l'écran ñoom yi nga xam ne nag moom mooy gunge ci koor gi waaye tamit wax dëgg yàlla ak eh, yi nga xam ne mooy Western Union eh, jox ak yónnee xaalis fii la gën a gaawee mbokk yi daal bu ñu ko tënkee sponsor yëpp ñoo nekk nii defe naa ne ñoom ñëpp bëgg nañu ci li nga xam ne mooy liggéey bi ñu liggéey ñoom su ko defee Pierre dañ lay bàyyi nga may ñu tempo musical di daal day ñëw ci émission bi waxtaan ak nit ñi ci altine le 5 août 2013 waxtaanu koor ci yor yoru koor waxtaanu koor ci yor yoru koor ka nekk ca cabine technique ba di Pierre de Silva ànd ak ñoom Babacar ñoom Tog ñoom Bamba ñoom waaye tamit di nuyu de ki nga xam ne mooy madame Guissé ak ki nga xam ne moom mooy euh, Petit Silla Pape Silla ñoom ñëpp ñu leen di waaye di gërëm bu baax Pape Samba ci waxtaanu koor ci yar yaru koor alxatami <laughs> wa zumaani يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران يا حبي لك رمضان شهر الرحمة والغفران يا رحمة من ربي يغفر لي من ذنبي يا نعمة الرحمن يا حبي لك رمضان voilà mbokk yi ñu ngi am mbégte ak contentement ci altine bi nga moom mooy le 5 août 2013 ñu fas yéene ànd ak yéen comme ni ñu ko kon nag ñu ngi ciy gërëm nag képp koo xam ne yaa ngi ciy jàpp waaye rawatina nag euh, ñi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ci sponsor yi di ci am mbégte contentement bu rëy rek di wax nag euh, di grand chef nekk foofu ca Matam ak mbépp taalibe ak képp koo xam ne Haalpulaar nga nekk ci kër Thierno war a nga xam Thierno yàlla na yàlla defal jàmm yàlla may ko jàmm moom Thierno mu yëkkati drapeau l'islam ba ca kaw di ci am mbégte ci Modou Anne di taalibeem ak soxnaam Aïssatou Diallo madame waaye di nuyu tamit bu baax ki nga xam ne moom mooy euh, Serigne Abo Mbacké xalif général bu maa ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu ko xamal ne ko ba léegi nag <laughs> ay bi ba léegi nag <laughs> ay bi ay sëñ bi sëñ bi sama numéro yomb na xam ne soo ko laajtee rek danañ la ko jox su ko defee <laughs> ay sëñ bi ay yàlla nga gudd fan waay sëñ Abo yaa baax de sëñ Abo jërëjëf waay. ñu ciy nuyu bu baax nag El Hadj Ousmane Ndiaye di waaliwu yàlla nekk foofu ca HLM Angle Mousse ak soxnaam Adja Mamboussa Cissé Abdou Karim Mangane di opérateur économique madame Mangane Sadio madame Mangane Soxna Fatima ak xale yi nekk ci kër ga yëpp di ziar di leen ñaanal fan bu gudd ak wér-gu-yaram waaye oustaz Alé Badara Sy di la grand jolof jolof di marabu ak soxna Awa Ndiaye waaye waajuru oustaz Alé Badara Sy di maire Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di am mbégte contentement ci El Hadji Ibrahima Aïdara Tidiane di grand chef religieux waaye Serigne Habib Gaye di Mouhadamu Sëñ Mansour si borom daara ji yal na yàlla yokk leeram ñu ngi koy ziar di delluwaat di nuyu suñu papa cardinal di ko ziar bu baax ak képp koo na ne yaa ngi ci jàngu bi rawatina ñi nga xam ne nekk ci église yi ak ñi nekk nag fépp foo xam ne nag euh, ndaw cardinal bi nga rek rawatina nag ki nga xam ne moom mooy euh, abbé Roger ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu di yóbbante nag ñi nga xam ne mooy waa waa port ci sama sëriñ di docteur Cheikh Kanté <laughs> moo koy nuyu ak ki nga xam ne moom mooy docteur Cheikh Kanté yow secrétaire yi ak ñi fay liggéey ak ñi nekk ci Cheikh Kanté da jege ko sama yóbbante bii boo leen koo xulee wari nga Cheikh Kanté directeur général maa la ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram waaye nag suukar koor gi ci wet gi gisuma ko la bateau de sucre accosté à port le paas la prendre <laughs> waaye Kanté dundal waay yàlla ko yàlla may fan bu gudd Cheikh Kanté di nuyu de maître Fatima Fall huissier de justice nit ko yàlla baaxal président Mamadou Racine Sy ñooñu ay nit ñoo xam ne ñu jaral ñaanal nañu ndax ñii démb la avant tey su ko defee ñu waxtaan waxtaanu koor ca kaw ci yor-yoru koor ci suuf waxtaanu koor ca ndeyjoor wala ca càmmoñ waaye aara ba jël ci ustaas yi nga xam ne <laughs> ñetti fan a ci des wala ñeenti fan oustaz yi waaraate wuñu fenn <laughs> waaye oustaz yi waaye waaye oust eh oust <laughs> Pierre nag ñu ngi ci dëppaa car ndaw ga fu ñu leen dëppaa car ndaw ga mooy fi nga xam ne mooy ca dëppaa ndaw ga wara a ca cëppaa ndaw ga war a dëppaa ndaw loolu si neex waxal rek xamal ne yaa nga ca finition ba ba ñu egsee dëkk bi nga xam ne moom mooy Xuraysin bët gànnaaru Israël ñu war maa attaqué nag ndax dernier diplôme bi nga xam ne su ma ko jëlee war a doon professeur à l'université islamique nekk fi war a recteur de l'université islamique war a ma nekk directeur de l'université islamique diplôme boobu rek mooy mën a tax nga am ko ba ñu ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bët gànnaar ñu ngi may xaar boobu batar batar ak batar buut puutar ak bu ndox ña ngay préparer seen ay pexe pour jéem a fagagal ma bañ a jot diplôme boobu umu kalsum bi te suuf ñëwul de su ko defee ñu ànd ak ñoom daa dee dem ñu ne mën a daga dem ci benn terrain neutre Pierre fa bu fàtte ne téléphone yi mën nga ko ibbi tey teel koo ibbi ñu teel a waxtaan toj fi ndax bu leen fàtte ne ñetti fan ci des te fan bii mooy fan bi gën a dangereux tey mooy bés bi gën a metti bu Abu Bilal war a am jàkkaarloo ko ñi nga xam ne ñoom la jàkkaarloo jàkkaarloo ko ñi nga xam ne ñoom la jàkkaarloo mooy membre jury bu rëy bu rëy ba membre jury la bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc ci lépp ñoom ñooy toog di la noté ñu ne ey Abu Bilal ci arab altari xale leen ko yoon wazira kaani albureke nuuru zërikal wala kalawuru xanaa xamoo ne nuuru mooy leer al tarik xalli leen yoon bi leer gi daa dee egsi tarik nuuru foo dégg nuuru rek ku ñu tuddee nuuru xamal ne mooy leer tarik mooy yoon kon nuuru tarik yoonu leer al zuuri waamakul wuula waamakal weeli Dubaay <laughs> gis nga Dubaay dëkk la boo xam ne dafa meloon na Mauritanie kon Mauritanie fukki at ak juróom-ñaar ci ginnaaw Dubaay ni Mauritanie la meloon am na ku nekk ci ligne bi allo. allo. waaw salaamaaleykum. ah ah jigéen njëkk dugg moom loolu moom xéewal la na nga def. maa ngi rek. tur bi ak noo tudd. man la woon loon benn baraak. waaw na nga def. li ma def xam nga ko. yow laay déglu de. dama de. waaw. li bëgg mooy nga wax ñu yow kañ la de ñi di julli yow Oustaz Abou Bilal ci sa kiraama laa bëgg nga wax ñu yow jeudi la ñuy julli wala vendredi la ñuy julli. da ngay laajte wala da ngay diingat. damay diingat yow rek ñu sonal yow Kouthia si mu yow boo toogee ci télé bi da ngay mel ne du ay musulman ñoo la ci daan dañoo bëgg nga won ñu ci say kiraama yow li la yàlla jox li la yàlla may kañ la ñuy julli ndax jeudi la wala vendredi. bu soobee yàlla balaa balaa balaa mercredi nga xam ko. waaw dama de. waaw ñaareel bi mooy. waaw yow say kiraama yi ngay wax naan kiraama yeeg yooyu. yow sa benn trophée bu soo ko génnee ci télé bi ne lii sama trophée bu ma gagné ci kiraama yi may def la ak li ma yàlla may benn trophée amoo ko. ma ne. mu soo ko génne si télé parce que amoo ko yow yow tànk woon ñu kiraama ñun benn baag bu ma la bàyyee woon xam nga loolu sax jaay. nga soxna si waaw batar buut bi ngay wax. Ah? ak buut ban. waaw yaa ngi dégg. ñett ñett yooyu ngay wax ci rajo bi laa bëgg nga confirmer ñu lan la ñu bokk ñett ñooñu nga ñu ak batar batar bataree nga ñu rey ñu dañoo woon rek ñu jërëjëf soxna si jërëjëf wandang wandang xoolal amul wandang wax ma rek génneel rek say kiraama ñu xam. Ah, kiraama bii wane ne ndax dinañu waree alxames a àjjuma ko suba laa koy def. waaw batar buut bi nag. batar buut ak bar buut wax naa ko fi daaw waxaat ko fi ren. batar buut ak bar buut ñoo bokk benn ndey. <laughs> waaye seen yaay ak puutar ñoo bokk benn baay. waaye puutar ak abu bu ak abu ba ndax ay doom nañu ci ki nga xam ne moom mooy buutuur. yooyu tey histoire bii boo coupé téléphone bi léegi toog sa saal balaa muy jeex ma wax la kiraama yi. ma nag gis nga yow gis nga yow noo sant nga ne. waxoon oh, la sama xam nga loolu. xam nga wandang boo santul jàllo sant nga ba. jàllo xamal ñaari yoon nag képp ku sant jàllo nga dëkk benn barak wara nga dëkk jëppal wara a kastoor dama ne war a nga dëkk Medina war nga xam Boubacar Diallo wa ilaa moom pappam Boubacar Diallo <laughs> nga xam ne yoonam nekku ci papam nga xam ne yoonam nekku ci histoire bi moom wari na ak képp ku sant Diallo nag amul Adja Marème Diallo dëkk ca jëppal amul yaayu Mati Samba yooyu yëpp dama ne ku sant Diallo wari nga ndax wandang gii di dugg fii di ma wandang wandegee dama ko dul nangu su ko defee maa ngi remercier la pénitentiaire ndax tey bi maquilleuse yi moom moo ñëw maquillé ma may xamal nag patron maquilleuse yi bu fekkee dañuy fay nañu wàññi semaine bi yëpp li ci ëpp kii waroon aye le soir maquillé wu ma damay jëli pénitentiaire mu ñëw di ma maquillé te loolu du yoon Pierre li ki dugg léegi laaj wax nee na ma ndax am nga trophée wala amoo trophée fii la ñuy génnee trophée yi waaye dama bëgg na nit ñi xam na ne histoire bi biñ ko tàmbalee ba léegi maa ngi ci diggante Kuréesin ak bët gànnaar diggante xatam yi mu may jàngal di ma sol may def ay kéemtaan yi ma fi def yëpp xam ngeen ne ku jàngul doo ko mën may dellu di gërëm bu baax waa Touba ak waa Tivaouane rawatina waa Kaolack Njaas ñaseen yi nekk Kaolack dañ ma bëgg boo demee Nigéria waxtu bi ñuy waxtaan yéen ñu ngi seetaan émission bi dañuy daanu leer may gërëm waa Kër Baye Niass ñëpp delluwaat di gërëm le président de l'Assemblée nationale monsieur Moustapha Niass sama xarit mag dafa baax ci mi gouvernement day am mag dégg ngeen Macky Sall wax na ko dem nee na confiance mu am ci président Moustapha Niass tey la gën a dëgg waaye tamit sama diggante président Moustapha Niass jàmm rek na ko yàlla defal jàmm moom tamit dafa bokk ci ñi nga xam ne dañuy rafetlu émission bi ndax dañ seetaan nit a ko bett nii muy seetaan kon dama ne waxtaanu koor ci yor-yoru koor ca kaw waxtaanu koor ci yor-yoru koor ca ndeyjoor waxtaanu koor am na ku ne ci ligne bi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. kooku an la Bilal la boo Bilal. waa man la. man la sa maam Seydou Samb. waa mère Samb na nga def. sant yàlla rek. jërëjëf. yow daal nee naa la kenn mënul ci yow dara rek. mère Samb. waaw. Euh, xam nga man euh, vraiment dama la jox cër parce que mag nga. loolu kenn weddiwu ko. waaw dafa amoon loo xam ne boo ko réglé ak man da bàyyi ba émission bi jeex nga réglé ko man mais doo dugg ci télé bi ne waa ngi ñëpp di ma wax yoo xam ne vraiment amoo fenn foo waaye yow ci boppam yaa bëggul ko wax ak yow ca suuf. nga ne. yow mi ci boppam yaa bëggul ko wax ak yow ca suuf bu la leeree ne loola dana la ca fekk mënoon ngaa bañ a defee noonu mënoon ngaa ñëw rek ñu waxtaanee ko ca suuf waaye yow ci sa bopp yaa bëggut loolu. def li ngay def ba pare daal di daw yaakaar ni kenn mënu laa jàppati ci réew mi loolu xam nga ne munta nekk bu ma fi soofee ba soof na danaa dem ca maître El ak moom. ah kon daal yow daal yow nga bëgg a loo xam ne tegoo ko fenn gis nga soxna si gis nga soxna si. ah lay boo moom moytuwul li ma lay wax ni du ay waxu def kiraama ci yow boo xam ne danga doon nekkaat liir bu ndaw te dootoo màgg. nam nga bañ a moytu rek. wa yow wa yow yow mënoo def ci ramal yàlla yow ustaas buy tëju nga wax naa la ko ustaas buy tëju waate nga mënoo def benn kiraama boo mënoon a def kiraama kon doo def lee nga def fee ca tubaab jala ba pare daw. dama ne maire maire maire maire dama la jox cër. jox naa la cër nag te respecté naa la trop. waaye dama ne bilaa la leen doo bilaa la puus bilaa boo xamante ni dangay ñëw def la ngay def ba pare na nga def sa responsabilité. Bună vakanga toate dinge telebi. Tan si mano, sa mano, chomo no, semene. li ngay wax yàpp na yow yow yow seete sa bopp na yow wane gii. waaw dama waa dama ne. sama sama wa zimaanu ak sama wa zaamaanu mun nga ci bañ a dugg loola neex waxal waaye samay zimaanu samay zaamaanu maa ko moom. waaye danañ ci dugg danañ ci dugg laay la naa lu doo moomu. waaw man maay ki ta ki ko ki ko soxla war a moom ci suuf di wax moom ci kaw waaye demal rek. waaye da nga wax ak man nag. màgget yi man ci nii màgget yu baax yi mel na yow yëpp ñu ngi toog yor seen kurus di wér di ñaanal seen ay doom waaye ngay dugg di teesante ak man di nga xam ne man du ma gune goo xam ne dama koy bàyyi ak màgget danaa ko defanteeg yow ba mu ba fu mu yem yem yem neex. ah ja man de yow rek laay xaar. ma ne. loo ca bañu daal bañu ma ko ca. tàllalal sa loxo ma ñaanal la ku ne dem man ca benn fan. du ma bàyyi weer ca benn fan. dama ne loo ci bañu bañu ma ko ca. sa loxo ma ñaanal la nga dem ma dem. tàllal naa. bisimilah. wasiimaanu. wasiimaanu. wasaamaanu. wasaamaanu. wasiimu saamaanu. wasiimu saamaanu. mag day lijjanti yëfu mag. mais dama ne boo defee yëfu gone ci boppam ba pare daw ba ko fa ñu wax la mag a wax a jaw. jërëjëf jërëjëf. ñu ngi lay xaar nag. jërëjëf ma ne maire ba ma laa wax. ma jaw mooy ko bàyyi mu ànd ak yàlla. ko bàyyi mu ànd ak yàlla jéggal li ma la wax daal. toj nga dëkk bi nag. d'accord jërëjëf dama ne dama ne yàgg waa tubaab jalaaw ñoom yëpp wari ngeen. ku sant Samb dëkk tubaab jalaaw wari nga. yow yaa ñu njëkk a wari. nga ne man ngay wariloo man ngay wariloo. barka mën naa ko wax ne yow boo ma moytu ba danaa la fekk foofa dafa yow la war a dafa bul ma yëngal yëngu laay bañ bul ma yëngal yëngu laay bañ. bul ma yëngal yëngu laay bañ. bul ma yëngal yëngu laay bañ. ma ne ma yëngoon yëngoon laay bañ. waaye waaye ma raas <laughs> kon su ko defee gis ngeen fu mu mujjee dafa naax naax nag ñu bari lañuy yaakaar ne du dal ab gune dina dal ab gune kon képp ko sant Samb wari yaa xam boo dëkkee Sicap wari nga yaa xam boo dëkkee Scat Urbam wari dama ne ku sant sàmb ak kuy sëy ak ku sant sàmb nga xam ku sant sàmb kuy liggéey ak ku sant sàmb ñoom ñëpp ware nañu bépp sàmbeen bu ne ci réew mi ware nga ndax sàmbeen bii dugg naax ba xamatul fu mu ne xam ngeen fu mu mujjee di taasu ci weeru koor ab màggetu sambeen xam ngeen ne sàmbeen yi talu ñëpp leneen da dul war di taasu ci koor gi su ko defee Pierre ñu ngi kontaan trop